ku màggali bisub gi doona may ni man neti yoonu géegi ndegam yoroo jawaabi bamba géega kerooy doolo yàlla teg Mustafa may ko yoolu dema mata marwataak saba njol makka may ko darajay saaba خبل gu بجبلو jublu muy رزقتني الحج إلى آيتي وسور والجار فيك كان بامب يبل القرآن الإيمان والإسلام والشان شنو بينه اللسان والكتاب أزمان قمة الأداء الكتاب شلو به العرب المدعبي وقت جهاد بالمنابي كرلت بقادم رسولي قريبة رسول بالوصول من سنني قيل قديم مستوى فإنني أخدعه كما من سعى كون قديم المستوى فإنني أخدعه كما من يلقيني في البر وما قربتي فساد الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبلي اليوم كرجل قال قيدو بوالد تسبار mu jàpp am madam sew dal bay dikk taxa bi kanam dal koy laal bamba ba saan mi delloo maal ba mosaa ma dem ba si laal ko nee tuuti kon mu takk bar baal ko gaa yi ñoo ko booleeg der lal ko ca mbeex ma sa demul ca ba cheikh bamba dal di jàpp jul disbaar gaa yi badar maa lii déeg waar keroog la bamba ma sa feeñal baax lu baax du baax bee su baax bamba baax moo nu ko daa xibaar dun ko duural ku yóbbu gëm ku yóbbu weddi buural tuuba li man hammana ahlu leey waylun li man ankaroom bi leey keroog la bambrom waa hindaloos machine barul na weesu mandaloos abdul la capitaine bala moo ko teeru ba fa Angleterre lakki tuuru yooyo ba gaal ga teddi jëm ku naa kiri bisib dibee nooy naa giri giri ca takkusaan la gaal ga daldi koste dun bu ñu naan tubak mara ñey konte ke ala bamba je gis kurmaan timine gurboo ñu neewi maana mu daa ak Karaago ak Cameroon saa sandra àll wàcc gaal gi fi ñuun waxtu la bay taxaw ñu lit mu dekki ilaa ku kiri tubaabi soqi mi di la war ca gaal ga wala gaal ga teeri fii dara mbasa juróom fale ay la kable foobee daa màcc fanaan bi sherwali post bu leen leen no sore naag bax mi di la war ca gaal ga jaari luume jaar asame jaar kutunu jëm daaw me bu ba cati aan ak Seex Bamba xëy jëm daaw me rombe la gos ca tubaabe arme fooba la France am coo waxtu Seex Bamba yi te tiimal waxtu malekani maaliki nda daaw me maxat kabaani el hudaata sewmi keroog la Bamba tabbi géeji Kongo kabla bi saala wàcce neema